ñaanal imam Ndao yàlla na ko yàlla xaraa na di ko jaaleen ak ay doom ak njaboot imam Ndao diine imam Ndao politique moom sequma ak moom lenn parce que li mu gëm gëmu ko lui c'est un islamiste politique mooy je suis un libéral démocrate l'islamisme politique boo bëggee xam lu mu doon ne day xool Iran la xew Iran la bëgg def Sénégal maanaam un pouvoir religieux su boobaa penn sa mees bi doo ko sonn doo toog fi yor rajo di émis di euh, di animer débat politique parce que foofu amul liberté d'expression amul liberté de presse loolu la bëggoon def Sénégal waaye sottiwut bi jëes nag mooy euh, Omar Diagne ak euh, Karim Xrum Xax waaw je crois que lu ñu gën a yàgg kaso moo gën ci Sénégal parce que dañu def lu garaaw waaw <laughs> mais Karim li nga ko mën a waxee noonu dama koy waxaat ci ko lu ñu gën a yàgg kaso moo gën a moo gën a moo gën ci Sénégal d'abord un dañu wax lu dul dëgg te tooñ parce que nit ku faatu ngay naan nañ ko autopsie dañ koo rey. man de sa fit dama ne nit ku faatu dama ne dafa am lu ma ñëwee pare nga xam ne ñoom luñ gën a yàgg ci kaso bi moo gën seen. ci hmm. Sénégal. Hmm. Euh, Imam Ndaw. bi mu hmm. feebaree. Imam Dame Ndiaye. que je connais bien. daf ci doon jot dox yi jéego pour ñu yóbbu ko bitim réew faju ko. nee nañ biñ ci biir ci ñenn ci njaboot gi ñoo ci d'accord. loolu mooy version bi imam euh, Dame Ndiaye joxe gën na leneen am ci biir en réalité parce que imam Ndao yàlla dafa dat dafa dafa xam ne ni Marème Faye moo ko bëggoon yóbbu waaw waaw moom la imam Dame Ndiaye doon dox ah, famille bi bañ ne dem ba yàgg ñu ne bëgguñu daal wóorut France bëgguñoo dem France quoi mais am na leneen ci biir su ma su waxee da nga xam li tax imam Ndao dafa am benn xarit bu mu bokk ak Macky Sall koo ne mi ngi ci bitim réew Sénégal la may bitim réew la nekk kooku mooy yëgal feebar bi Macky Sall sakku ci mom mu dimbali ko pour ñu yobbu ko France fay président jox ndigal son so so le général Mara ki nga xamne moy son médecin personnel pour mu mu gérer lolu koku di wax ak ñi koy faj ak hôpital Fann wax ak hôpital bi nek France gis nga aljuma jëlé passé ama muy fatu su fekkonté ne Imam ndaw nekkon na ci condition pour ñu mën ko transférer France France lay fatu way du fatu Sénégal waye docteur ñu mën ta dem c'est-à-dire bama ñak nañ ci espoir bi ci des benn bi mayee Imam Ndao woto léegi mutul ñetti weer. may na ko woto. bi mu ko mayee woto léegi mutul ñetti weer moo tax quand j'ai entendu see doomam ji ak ay ay ay ay ima taalibi wër ko mais ba wax waroon naa wax loolu ne suñu bàyyi Macky ñetti weer. moto bi nag Imam Ndao ñëw ko ko Macky Sall jékki-jékki may ko xaritam bi ñu bokk tam dëkk bitim réew moo ñëw Sénégal dem seeti Imam Ndao di waxtaan ak moom pour mu gën a xadaram ji wàññi ko bi mu jógee ci moom mu ñëw di waxtaan ak président Macky ci waxtaan moom mu a ko dama bëggoon nga may ko woto pour di ko mu faciliter ko say déplacement président jëndal ko L200 booba léegi matu ñetti weer moo tax famille bi ñuy wax loolu tax nettali wuñu ko lu tax ñoom waxuñu ne Imam Ndao li ko tee dem France mooy dafa ci coma bi mu nekkoon mënu ci woon na bokk ñu di ko transféré bitim réew. mais ku xam antécédent yi nga xamante ni maam na amoon na ko ak nguurub Sénégal est ce que bañ ko may woto bi xam nañ ci président la jóge. pour mu ah mais xaritam moo ko ñaanal woto bi président président jox ko woto bi. d' accord imaam ndaw moom xam ko ko ci dara moo ko may parce ko moo ko ñaanal yóbbu mu jox ko ko mu yóbbu ko xam nga dangaa dégg ñoom bëkk dem bi ñuy wax ñu ne waa imaam daf ne bi mu nekk ci hôpital dañ ko doon taal laser di ko teg ci yaram xam nga wax na ko bi mu nekkee kaso waaw mais bi mu demee ñibbi nee na mi ngi kon ni yëg loolu kon daa mel ni ñu newoon ci kaso di ko def loolu dañ ko ñëw këram soxna soxna Pène bu waxee loolu da nga ko yóbbu hôpital Fann parce que boobu ak wér di dugg na ci mu xelam non wax wuñ ko noonu dañ ni. Hmm. jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi ko. non laser yi la wax. ndax yi nga xamante ni mu ko doon dugal te ba. waaw mais nga nag. xam nga tey bi suñu seen man ak yow xam nga suñu suñu raat bi fi yem. imaam ne. Hmm. dañ ko ba mu génnee ci kaso ba mu génnee kaso bi mu ñibbisee këram te Saalum aussi mi ngi continué di ko di yëg loolu ci yaramam. waaw ma wax ne lañ ko doon def ca kaso ba ñi ngi koy def ci këram kon daa mel ni ñi ko topp dañ ko topp si ba këram. mais bi loolu bu la ko sa waajur waxee tam ah, ma ma am at yi mu am da nga ko yóbbu gëdd ko ñu xool ko ba xam encore une fois imam wopp ko rek AVC ak crise cardiaque kon di ko jiñ nit ñoom ne ne nañ dañ ko rey nañ ko prouver et ces gens-là c'est xam nga démocratie benn benn démocratie du yëfu baadoo mais jàppoo ne ci démocratie boobu nga taxaw noonu euh, tey am nañ droit peut-être soulever seen ay doutes parce que ñoom seen ay doutes kese la ñu. non non démocratie moom xëy na mën na am droit yu waaye l'État aussi a le devoir. que toute personne qui dit des contre-vérités, qu'il soit punie par la loi. C'est aussi ça le devoir de l'État. Parce qu'il faut nous comprendre. Pour la démocratie, j'appelle aussi la justice a le devoir. Bon, on tout peine de vous kaso. kon da ànd nga ci jàpp guñ ko japp ay vous ñu ngi le ñu bàyyi ñu ñu leen yéex a <laughs>